waa Yewwi Askan ah, Wi li may leeral mooy dafa am sànq lu ñu wax lu am solo ñun bi ñu xëyee ci saal bi ku ne gis na ne ñun demuñu waxtaani fa lañ toog mhm. ñoom ñoo dem yi kenn ku ci nekk na du bàyyi présidence ki mhm. ba ñëwee ñu xëy di leen xaar ba vingt heures mënuñu juboo mhm. di leen xaar ñu ñëwaat ñu ne kañ la ñuy voté ñu ne ñoom kat nee nañ ministre yi la wax parce que étape par étape lañ ko def dañoo njëkk a ñëw ne bulletin yi il faut ñu changé ko ñu jàpp ñu réglé boobu ba ñoom ñu suspendre dem waxtaan ba ñoom ci seen bopp Birame Souleye ci boppam. Mhm. moo d'accord ak Omar Youm na ko texte yi li mu wax dëgg la Birame Souleye mi ngi may dégg. Omar Youm mi ngi may dégg Omar Youm wax na ko barki dem ci plateau. Mhm. bi ñu d'accord ñu ñëwaat ci salle bi. Mhm. ñu toogaat tuuti ñu tulli problème mu ministre yi. te ci biir problème ministre yi bu fekkee man sama mandat. jour bi ñu ma installé la jeex. jour bi ñu ma installé jeex mais ministre bi tamit la jour boobu la commencé te comme comme règlement intérieur bi article 110. may na ko mu am huit jours pour aj suspendre mandaam dem. d'accord c'est bon. non des na. Mhm. <laughs> beneen bi moom mooy su fekkee ne da nga ne am na ñoo xam ne dañoo violer ay loi parce que y avait des enveloppes yu amul bulletin. mille fois madame la président laaj na kan moo amul bulletin ñu yëkkati ñu jox leen ñu ñëwaat sànni ko ci suuf dama toog ñaata yoon ngeen ko gis ñu sànni enveloppe image yi mën ngeen ko génne. à chaque fois bu ñu toogee ba mu neex leen dañuy rocc na man bii gisuma ci beneen tour déedéet c'est impossible. UCI c'est de c'est l'administration ñooñu waruñu leen di ñun waruñoo jël erreur bi ngeen def keroog ñu bëgg cee boole ñëpp dama ne texte yii ay homme de valeur ñoo ko fi ñoo ko rédigé woon d'accord naa nag ñu améliorer ko à l'avenir mais buñ xëy rek yéen ngeen ñëw tey jii texte bii règlement intérieur bi constitution bi moo la fal andi la assemblée nationale bul ñëw le même jour de l'assemblée nationale ngeen ragal seeni député rëcc voteel ñu ngeen bloqué vote bi wax nga ko léegi dangeen ngeen ne vote bi da ngeen koy bloqué ku am sañ-sañu bloqué vote ci assemblée nationale mhm. ñun ñu am sañ-sañu voté ak li nga xam ne moom la ñu am te bu tey tey jii Moustapha bu fekkoon ne vote bi légalul mhm. su ngeen xëyee di ngeen ko attaqué très bien un dernier mot Mame Birame sur ce thème là après ñu avancer Mame Birame dama ko bëgg a wax rek euh, mën na liir liir na article bi mais comprendre ko mhm. c'est ça. non comprendre article. comprendre mm. ci article bi lañ jaar ba suspendre seen mandat seen i seen fonction seeni i mandat député ci article bi mm. man mi comprendre article bi da ci lañ. sukkandiku andi yéen nag soo dee wax ñoom ñëpp dañ lay déglu léegi léegi may leen ñu wax ñoom it. Ah, allez-y ko te su bëggee ma démontrer ko ko. rapidement parce que il faut ñu avancer un peu. Euh, euh, lire l'article bi ma démontrer la ko. non non non il faut qu'on avance maam Birame. <laughs> su ko lire rek ma démontrer que comprendre ko. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'article dit Sinon, on va faire toute une émission sur cet article-là. L'article, combien 110 encore 110. Oui. Qui dit L'exercice euh, de, toute fonction publique non élective est le micro, le micro, avec, le micro, le micro. mandat de député. Mhm. En conséquence, toute personne visée à l'annuaire précédent élue à l'Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la, dans la disposition la position prévue à cet effet par le statuts de résistant dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction ou en cas de contestation de l'élection. Dans les huit jours suivants, la décision de validation. donc l'exercice de fonction confié par un État étranger. <laughs> leer na mais la ko bëgg a wax mooy élection bi. la hmm. jël en repère. te dañ koo bañ ba ne la. Hmm. bu contestation amee. il faut huit jours après validation bi maanaam bu conseil constitutionnel validé huit jours après. loolu laa la bëggoon a wax. très eh, eh, eh, non non non d' accord li ka may mu siège assemblée. Euh. li may ministre bi mu ñëw toog siège. mais andi yow moo ko may huit jours. li nga wax li liir nag mooy li Mame Birame expliqué. mais li moom la moom la li nga liir mooy. ñi nga xam ne ne. oui si maanaam ci métier mi lañ nekk. constitution yi ñoo ko wax juriste yi ñoo ko wax. non non juriste léegi nañ avancé léegi nañ nañ avancé. ministre façon ñi ñi seetaat bu baax li ñu wax. très bien euh, dama bëgg mu ñëw daaneel a joxe maa ngi ñëw maa a pas de souci allez-y. dama bëggoon joxe euh, réponse ci sa question bi. à kii la faute. à qui la faute. Pape Makhtar wax na ko man je trouve que la faute mooy ki ñëwuloon jour boobu assemblée nationale te nekk njiitu réew mi le président Macky Sall. déjà première chose assemblée nationale waruloon a am bureau. te amuñu gouvernement ba pare. ensuite discours bu mu def. bi assemblée nationale xeexee ba député jàppante ba pare discours bi léegi. discours bi voilà discours boobu mu def. avant la ko waroon a def tout juste après élection yi. bu doon xam nga euh, wax naa la ne euh, Moustapha Niasse dem na élection mhm. am opposant mais ñu waxtaan ba dem élection te coow amul mhm. pourquoi cette fois-ci ça n'a pas été possible parce que acteurs politiques yi relation d'adversité nekkul seen seen diggante mhm. mais relation d'animosité wax nga ko fi plusieurs fois très bien la xewoon ba ñu waxtaan c'était c'était impossible te bu boobaa xam nga responsabilité bi kan lañ koy incombé mooy le président de la république bi nga xamante nii parce que partage bi ñuy wax ni c'est le peuple sénégalais qui l'a décidé. ñoom ñoo dem vote ne nii lañ ko bëggee. donc moom mi nga xamante ni moom mooy le président de la république. moom moo waroon a def discours jàpp ne euh, sénégalais yi lii la ñu décidé moom dina def de sorte que nu mu tuddati ñëpp ci jàmm. Mhm. dem voter bureau assemblée nationale. Mhm. comme ça c'est France. bi ñu defee élection mu jaxasoo comme nii. mu am ballottage entre les grandes coalitions. mais le lendemain Macron dafa def discours wax ne désormais assemblée nationale kenn mënu fi voter loi te waxtaanoo. mais loolu c'est la réalité léegi nag bu nekkee. parce que wax nañ ko 2017 bi ñu génnee ak seen cinq députés kenn xalaatul woon seen yu mel nii am fa. mais bu ñu fàtte tamit que ci seen 13e législature bi la Ousmane Sonko demee assemblée nationale mais ñu sotoo ko fa. bu ñëwee di wax sax dañuy génn bien sûr mais am na am na am na am na ci générique am na ci générique Walf yi am na ci générique yu Walf yi. Mhm. benn buy génne bi ñuy song Ousmane Sonko assemblée nationale ba am kenn kuy xaj di dóor kur feñ. Mhm. boobu ñoom dañ fa nekk san 125 Ousmane Sonko nekk fa moom kenn. léegi bu ñu demee ba les forces s'équilibrent mhm. ah ñii tolloo fa ñii ñii opposition ak pouvoir tolloo fa. mais da lay leer ne lenn moo mun a am mooy waxtaan. te waxtaan boobu pour moi il faut nu mu turati mu euh, euh, jaay doole bi ñu génnee ko déjà tegee ko nële. Mhm. te loolu nan lañ ko imposer mooy ñëw déjà assemblée nationale commencé nu mu turati euh, violer les lois. loolu noonu bu doon bu ne bu nekkoon ñëw nañu assemblée nationale amul procuration amul dara ñu discuter ñu ne bulletin amul. ar règlement intérieur assemblée nationale prévoiru ko parce que texte yi dañoo am vrai vrai problème. Mhm. Pape texte yi dañoo am problème ñu ne comme texte yi prévoirul lii nañu waxtaan te waxtaan bi c'était possible parce que les autres jours def nañ ko ba teg euh, ba mettre en place très bien vice président yi ak secrétaire élu ak commission yi loolu yëpp waxtaan moo ko indi donc waxtaan boobu ñu waroon a def au départ loolu la ñu faussé wuloon parce que relation euh, opposition ak pouvoir bi dañu dem ba nga xamante mais ça ça dépasse le cadre de l'Assemblée c'est c'est la classe politique au Sénégal dem ba waxatuñu mais bien sûr xam nga déjà yow buñ la nee ñi nga xamante ni ñoo nekk yeewu askan Yewwi Askan Wi nekkoon ci assemblée nationale ba am na ci au moins cinq ci ñoom ñoo xamante ni ñu ngi liberté provisoire ba léegi. Mhm. mais ñooñu kan moo leen teg loolu lu dul pouvoir bi nekk en place. doo bëggee nag ñooñu ñëw ci assemblée nationale ba ak seeni i reetaan ak seen contentement mais mënul nekk te loolu. Mhm. Euh, je je di que bu nekkoon tey Guy Marius Sagna lan la ko sénégalais mënoon a jëppee. nekkul yéeg na ci kaw table bi de parce que jusqu'à présent violé wul la loi bu fa tëggoon mbéj jour ab gendarme tamit du violer la loi. ma wax la ko. ah oui su fa tëggoon ba jour ab gendarme du violer la loi. ah oui bien sûr waaw mais il faut penser aux Sénégalais qui vous écoutent quand même. <coughs> mais li may wax loi laa wa li may wax loi laa wa non mais man li may wax loi laa tamit seet leen xale yi ñuy déglu. lu mu def ci biir assemblée bi lu ci wax kenn ku ci mën eh, a laa wax man loi la Moustapha. Hmm. loolu mu la tànnali la de yow yow policier bi ñu indi la foofu pour sécurité. Hmm. nga jékki-jékki gis benn mbër bi nga ne mu ngi dóor beneen mbër bi nga bëgg ne da ngay atte bu la beneen mbër bi dóoree kenn du ko ci topp. kenn du ko ci topp ah bien sûr yooyu yaay ñëw dugg ci combat boo xamante ni bokkuloo ci. bu bu bu bu ñu ko tënkoon mais mais loolu xawoon na am ci treizième législature bi bi Moustapha Niasse waxee day woo xaw ma ban colonel mu ñëw génnee euh, tous ces mangas les gens doon wax na erreur la parce que bu ko doon génne waa ji dóor ko du mujj fenn. du mujj fenn mais yéen tamit quand même il faut lire les textes alors. Moustapha. assemblée nationale président bi am na droit. Euh,